Assalamualaikum uh, uh, KM KMTV ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di leen bal ak di leen balu ak ci fête bi ñu joggé di leen wax ni ñu ngi ci référence basket club de Keur Moussa di wax ni ñun ñu ngi tuddu coach lay, ñu nekk ci liggéey bi depuis 2006 ak uh, ñi nga xamné ñoy suñu ay collaborateur di ay partenaire yu nga xamanté ba ni ñom lañ bokal liggéey bi di nuyu wa Keur Moussa yépp di nuyu wa Sénégal di nuyu wa aduna bi yëpp. Euh, li nga xam ne nii mooy camp de basket bi bi moo nekk suñu première édition ñu koy organiser fii ci terrain basket euh, bu lycée référence basket club. Euh, li waral ñu organiser ko mooy dañoo bëgg maintenir xale yi en temps de vacances ñu bañ a am beneen préoccupation bu dul li nga xam ne mooy sport ak étude. waaw loolu continuité la ci li nga xamante ne si mooy seenum njàng ak seen sport parce que xalé bi bu fréquenté wul tey ji tey fi nga xamné ni moy euh si basket bi ci vacances yi mën fréquenté leneen lo xamné ni euh gënul lool mo waral euh heure yi nga xamné si dañ koy téy xalé bi fi pendant ce temps moromam yi am na ñoo si ñi ngi nekk ci leneen lo xamné si baxul ci jeunesse Sénégal té li ñuy wax chaque jour mom lañuy wax moy que ni ndaw yi ñoy avenir suba kon dañ leena wara war a yar à ce que ñu représenter li nga xam ni mooy mooy espoir du Sénégal. waaw li nga xam ne ni euh, mooy déroulement bi dañuy euh, basketu xale yi ñëw ci camp bi waaw parce que xale yi ku ñëw ci camp bi tey di nga xam ni basket lañ fiy jàngale waaye tamit dañuy yokku yar bi yokk li nga si mooy mentalité xale bi si côté entrepreneuriat ak ci côté sport ak ci autre côté étude. dina am ay ay atelier de sensibilisation ci wàllu euh, njang ak njàngale waye ci walu sport ak entrepreneuriat. wa d'accord li nga xamné ne si mooy xalé euh, euh, xalé bu si nek boy ñëw ci terrain bi da ngay am diiné ku si nek sa diiné diiné bu mu mëna doon dañ la koy respectel waye li diiné bi warlo ak yow bu heure bi jotté inshallah dañu lay ñaax. ci nga def ko moo waral ñuy jàngal xale yi li nga xam ne nii mooy julli di leen jàngal aussi euh, naka la ñuy jullee parce que tamit li jangal doon wax ñun jàngaluñu xale bi li nga basket rek dañ koy jangal culture diko jangal religion diko jangal jàngal lépp loo xam ne si tey comme niñ la ko waxee woon suba xale bi su nekkee ci biir réew wala mu nekk bitim réew dana mën jariñ réewam jariñ euh, diineem jariñ ay mbokk wala mu jariñ teddu teddu loru wala mu jariñ bopam comprendre nga loolu moy li tax ñuy euh, bëgg xalé bi ñu def ci ñom euh, ci mom suñu kémtalaay kattan euh, donte ne nit mënul complet waye ñu def suñu kémtalaay katan pour xalé bi xam bopam xam ne c'est un sénégalais mom mu xam ne c'est un musulman mu respecté li nga xam ne si mooy walu dinem waye mu respecté walu walu sport invité yi invitation yi amna pas mal d'invitations, parce que keur Moussa bu xewlé d'habitude euh, invitation yi day xaw parce que ñun ak ñom ñi biti ay collaboration la yu yag ñu doon dem ci ñom en temps de jumelage waye tamit ci lu tamit camp euh, jeudi dina am gan yu ñew euh, samedi dina am gan yu ñew après wa Taïba Euh, am wa sibi Sébikotane aussi di len nuyu de passage parce que ñomit suñu ay suñu ay collaborateur yu yu yu proche lañu waaw di nuyu Père Baxaw suñu bay diko wax ni ko ñun ñu ngi ci ginaawam bu baax baax ñu ngi gis liggey bu rafet bi muy def ci Sébikotane di di di di ko nuyu rek di ñaanal yalla mu mu yag fi. waaw reference basket club li nga xamne ni mom lay produire euh, l'avenir de keur Moussa.

loolu mo gën kon basket mo gën fréquenter lenen lo xamné ne si du basket comprendre nga du coup li wax rek euh li xawa soxé touti euh moy liñu pénaliser moy terrain basket wa jafé jafé biñu am moy terrain basket public jafé jafé yi ñu am euh suñu autorité yi des fois xamuñ sport respecté wuñ sport té duñ ko jox akam ak yelef comprendre nga société yi fi nekk amoon ay cahier de charge yu ñu waxanté won par rapport ak ñom euh, ci walu sport partenaire yi ñu ngi fi lepp ngi fi parce que keur Moussa amna lepp mais problème bi moy niñ koy niñ koy niñ koy utiliser mo baxul comprendre nga kon su lolu amé ñu ngi ñu ngi ñaanat suñu autorité yi bu baax baax di leen wax ñu gessu ndaw ñi parce que ndaw mu nekk bu fi réussiré tay té fekk na japon nga ci réussitam suba su ko nexé mu ñew retourner ci investissement bi parce que waxon na la ne la ku mel ni Sadio Mané tey moo ñu mën a tabaxal yenn hôpital yu sophistiqué yi yi nga xam ne si mooy hôpital yi am norme euh, internationale ak école yi ak li nga xam ne ni mooy lépp lu jëm ci wàllu sante ak éducation kon xale yi jàppale leen jàppale sa bopp la ñun li ñuy def nii kenn fekkuñu ci fay ñu xaalis mais depuis 2006 ñu ngi koy def te yàlla rek tax te yàlla mu ngi ñu ci mu ngi ci wan yoon mu ngi ñu ciy fay waaw loolu mooy li nga xam ne nii moo ci nekk waaw euh, parents d'élèves yi ñoom confiance bi ñu am si ñun ba dénku ñu seen doom ñu koy tagat ñun ñoo ëpp ci confiance parce que confiance boobu lañ leen delloo parce que loolu saa yu ñëwee dañ leen koy delloowaat euh, di leen wax tamit ne nañu gën a jàppale yi parce que dafa am ñaari façon xale benn xale bi bu dafai nek euh, nekk koo xam ne si yar nañ ko seen kër ba pare kooku doo sonn ci moom parce que tout simplement da ngay def ci moom xam-xam mais am na ko koo xam si tamit dafay am adresse ci côté éducation bu ñew du yaru kooku bu ñewé da ngay défar yar bi ba paré donc ñaari façon xalé yoy nonu bu fekkente né yow am nga pédagogie de moniteur mën nga leen identifier lolu moy dëgg identification bobu nak sa soko défé day gawal li nga xamné ni moy mooy liggéey bi li gëna gawal liggéey bi tamit moy parents yi nga wax parents yi nit ñi dimbali aussi ñu baña a démissionner ñu def seen kéemtalaayu kàttan ci walu yar xalé yi parce que bo xolé

commune bu nga xamné ni maire bi def na fi 20 ans et quelque kooku mënul fexé ba jug jàppale sport lolu lolu dafa ñaaw waaw mais ñi nga wax noonu ñuy ay bonne volonté amna fi amna ya plusieurs bonnes volontés yo xamné si ñu ngi ñu dëkkee di jàppale chaque jour ñu leen ñaanal yalla mu defal leen jam parce que ku melni Lota Ndiaye mom depuis club bi juddu mom mu ngi ak club bi parce que mom dafa nek ko xamne si dafa jégué club bi boobu ba légui mi ngi koy jàppale et tout ku melni Yankoba Diagne mi ngi jàppale club bi ku melni président Boubacar ku melni Mamadou Diop monsieur le maire fay comprendre nga nek nit ko xamne si mom non seulement day jàppale club bi waye mom il est membre ci li nga xamne ni moy bureau bi bureau bi di jàppale tamit euh, xalé yi nga xamne si ño nek ci ginnaw def liggéey bu am solo ku melni matane mbeng Bamba ak euh, pap Diagne ak Cheikh Diagne di jaajëfal tamit euh, ki nga xamné moy coach Madou euh, di wax né que club bi tamit kuñu lim ak kuñu limul ñikoy koy bari na si ñoñu diko ko don ay bonne volonté ñoñu tey jii la laa yaakaar ne tey ñom ñoom mérité aujourd'hui ñu nek ay ay ay ay ay ay autorité ci dëkk bi parce que autorité bu bayiwul xel éducation bayiwul xel sport rek mu ngi def erreur parce que la fréquentation de la jeunesse fay basculer wu ci leneen loo xam ne si amal société bi importance té nit ki ku ne xam né ndaw yi suba ño wara représenter li nga xam ni moy Sénégal kon ñun buñu amul euh, vertu bobu noonu amuñu éducation bobu. kañ lañuy jappalé li nga xam ni moy Sénégal kañ lañuy am ay président yu bax kañ lañuy am ay maire yu bax kañ lañuy am ay ay ay de bons joueurs parce que keur Moussa dafa bëri talent mais dafa bëri lu talent yi di échouer té échec bobu yépp maire bi fi nek lolu responsabilité am la lu ci bëri responsabilité am la moo xam ci côté football la moo xam ci côté basket la moo xam ci côté sport basket bi fi mu tanee agent wu basket bi buy ñëw di yobbu xalé bi peut-être mom moy endossé li nga xamné ni moy euh, les frais financiers mais bu ci côté football tel n'est pas le cas bu ci côté football tel n'est pas le cas des fois ñu am fi ño xamné si dañuy wara réussir ci côté football wara dem à à l'extérieur du pays exercer fa football mais moy duré du réunir wala bok amul ben apport bu commune bi def pour subventionner li nga xamné ni moy football professionnel bi waaw di nuyu aussi de passage président présidente Maguette Thiour moom vraiment jambar la ci yeuf yi diko wax ni yeuf yi yombul comprendre nga ñun ñun tamit buñu xaar euh, kenn ci dara waaw boy loolu la leen faral di wax dama leen di wax chaque jour ne leen li nga xamné da ngeen ko ñak ci walu sport da ngeen koy compenser ak technique ak tactique ak discipline ak man li ngeen di def bu ko defee suba yéen dingeen bokk ci ñuy dogal su ngeen bokkee ci ñuy dogal di ngeen mën a changer li ngeen xam ne ni moom ngeen bëggul moo leen loolu loolu lu mënta ñàkk la parce que bi ñu xoolee ñun amuñu terrain basket public euh, CM bi ki nga xam ne nii mooy proviseur di madame Dia ak ki nga xam ne mooy censeur bi di madame Ndiaye vraiment ñoom dañoo jàppale ci ci ci lépp dañoo jàppale ci lépp lépp lépp loo xam ne nii maanaam ñun CM bi am nañ fi accessibilité ñoom ñu bàyyee ñu terrain bi carrément. di jël sax seen ay sen ay dole, des fois di ko jàppale di di ñu di ñu jàppale ci seen xel ak seen ak ak seen lépp ñooñu ñun mënuñu leen a fay suba xale yi xam nañ xam nañ ay nit ñoo cotisé woon pour jàppale leen kon ñoom war nañoo don ay nit yu social comprendre nga loolu c'est l'exemple donner l'exemple de social moy nga wax nit ki ko da wara war a dimbali suba vraiment di sant madame Dia bu baax a baax di sant ki nga xam ni nii euh, madame Ndiaye

waye di wax tamit que ne keur Moussa warna naa dépasser fu entraîner ci ay ay ay ay école sem parce que tamit euh, lolu ñun fiñu dem yépp on a fait le tour du Sénégal mais fuñu mëna dem ci aduna bi dañuy gis ne y a pas mal de terrain public aujourd'hui de basketball parce que basket wessuna na foofu faté né Sénégal équipe nationale a été euh, titre champion de N fois euh, ci góor ñi ak ci jigéen ñi kon li nga xamné ni moy mom moy basket wessuna ci foofu ñun ñu nekk tamit ay équipe yoo xam ne nii ci championnat lañ nekk euh, bu bag bi ñëwee wala BFM bi comme bi passé dinañ toog deux mois yoo xam ne si du ñu entraîné bëgg bëgg jouer championnat loolu mënul nekk mosuñoo jot subvention bu jógee ci mairie bi loolu du basket comprendre nga parce que ñun Kër Moussa la ñuy représenté ci biti mënoo nag di représenté Kër Moussa bëgg xeex ak koo xam ne si maire am da koy jox des millions de subventions yow kenn joxula dara loolu mënul nekk ci li nga xam ne nii mooy camp de basket bi fii ci référence basket club bu Kër Moussa euh, première édition 2023 di ñaan yalla yenen édition am wa di wo ñep à partir du premier au du premier août au au au 15 euh, septembre Inshallah taala. wa mo bi ñi wax ñi nga xamné si ño nek ci référence basket club en tant que dirigeant moy que ñom ak ñun ñi ñoo ci club bi wa ñun ñep ñu ngi leen di remercier bu baaxa baax di leen wax ni amuñu seen fay waye ñun it ñu affaire yi ñun ak ñom ñoko ñoko bok comprendre nga bu Kër Moussa réussiré ñun ñep ñoo réussir bu keur Moussa amee li mu bëgg ñun ñep ñoko am. di wax ni euh, comme que l'enfant est un homme en miniature qui doit traverser une période bien définie entre 0 et 18 ans nañ jappalé ndaw yi ndaw moy avenir suba parce que ñun ñep suba. dañuy nekk mag après ndaw yi moo ñoo ñu relever légui si relève boobu bu amé ay ndaw yu baax Sénégal baax waaye bu ñu amee ay ndaw yoo xam ne nii mooy loolu c'est le contraire. waaw ah, Kër Moussa Info ñun amuñu fayam Kër Moussa Info ca kaw ca kanam yàlla na ko yàlla def mu doon télé bi gën a mag ci àdduna bi man loolu laay ñaan yàlla di wax ne télé international la war a doon comme que nga yàlla na ko yàlla def parce que borom télé bi aussi am na xol boobu te yàlla xol lay fay te ñun tamit liñ koy ñaanal nii suñu xol lañ ko tibbee yàlla na ko yàlla def mu gën a màgg. Eh, keur musa Info ci kaw ci kanam wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh encore Référence Basket Club première édition Basket 2023